asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, tey nag wax dëgg yàlla damaa ñëw ci beneen euh, yoon boo xam ne ci zulmaniya lay wax ndax ku nekk xam ne ne ñaan yàlla ñaari pàcc la zulmaniya muy gàll muy gàllaaj bu ñuul ak nuuraaniya waaw muy gàllaaj beneen bi bu ñuul bi nag gën a gaaw lool tey nag ma indi leen ci loo xam ne cangat boo xam ne euh, pour wàllu am alal la wala pour wàllu yëkkatiku nga ñi dégg la ci li nga nekk wala maanaam pour wàll palu moo xam da ngaa a jiite réew ak moo xam da ngaa bëgg a jiite maire ak moo xam da ngaa a jiite ak lu mën a doon rek euh, lii moo ci aay bu fekkee ne nag nangu ngaa def lañ la wax ndax gàllaaj gu ñuul la waaw ah, neex yàlla dafay am naqar yàlla day am la ca njëkk mooy dañ ñu utal ndoxu foos ndox moo xam ne nit ñi sangoo nañ ko ba pare ndoxum sangu sangit ndoxut sangit nit ñi ndox ñi sangoo ba pare moom ngay jéemul ak foo mën a amee rek wala ñu ut ko bu ko defee gi moo nekk nii ci soo bi nii Euh, léegi nag da ngay utaale juróom-ñaari butéeli sàngara bëgguma tudd turi sàngara yi juróom-ñaari butéel nga ci wut ñu sotti ko ci biir moo nekk nii léegi bu ko defee ren bii man maa koy wut dagg ko bàyyi ko mu fanaan ci juróom-ñaari fan gis nga ba ci juróom-ñetteeli fan bi lañ koy doog ko dindi gis nga moo tax mu euh, ren bi bàyyi nii ci biir ak juróom-ñaari butéeli sàngara ñu ci def te itam naan ndoxam foos la euh, léegi nag nit ki mooy xool ba xam bëgg na wala bëggut waaye li def moom neex yalla day am naqari yàlla day am bu fekke alal rek nga bëgg boko liggéey mindeef mënu la téré am alal ci at mom bu fekke falu rek nga bëgg kana nga baña ñak dem ci jongante waye bo démé mu neex yalla mu naqari yalla yow lañuy fal ak ku mëna doon nak gis nga buñ ko bayé mo fanan ni juroom ñaari fan ba ci juroom ñetteelu fan bi dañ koy ubbi mo nekk ni ay gis nga buñ ko ubbé nak ci lañ koy boole ak euh, sunguf yi nga xamné mo moo ne juróom-ñaari reni garab lay àndal yoo xamante ni bu ci nekk ñoo ñooy liggéey sunguf bi indi ko moo nekk ni juróom-ñaari ren yu bokkul la benn bi moo nekk ni ñaar ñetti ñeent juróom juróom benn juróom-ñaar juróom ren yi garab yu bokkul la hmm. juróom-ñaari ren garab yu bokkul la bu ci nekk rek dañ koy ut nañ ko war a utee ñu def ko sunguf léegi bu ko defee tey jii euh, maanaam occasion la rek ma wane ko ndax dafa am ku koy liggéey du te lu yàgg dara da ngeen dégg turam man maa leen wax loolu amul mbindeef mu koy teree falu neex yàlla naqari yàlla nag laa wax waaw ah, léegi yow jullit bi yaa xool ba xam bëgg nga neex yàlla naqari yàlla wala déet waaye ma xam-xam bi laa yor moom laa liggéey ku bëgg rek ma liggéey la waaw ah, waxi tur nag taxuñu fee jug léegi fu mu nekk nii eh, tey jii lu may liggéeyal occasion la ma wane ko bu ci nekk rek da ngay jaar di comp def ci biir ci juróom-ñaari sunguf yëpp moo nekk nii ci juróom-ñaari sunguf yëpp bu ci nekk rek da comp nga def ci biir moo nekk nii ci nekk rek comp nga daal def ci biir ba juróom-ñaari mat fu nekk nii nag ren bi moo koy yëngal ren bi moo koy yëngal fu mu nii moom daal boo paree yow yaa xool rek ba xam bëgg nga ko wala bëggoo ko waaye daal ndoxu ndox mu nit sangoo ba pare ci foos moom la ñuy indil wala ñu wutal la ko rek bu ko defee nga jënd juróom-ñaari butéeli sàngara bu ko defee rek ñu daal ko xoj ci soo bi ubbi butéeli sàngara yi daal di def ci biir waaye mu fanaan juróom-ñaari fan ba si juróom-ñetteel ba ñu ubbi daal di dem uti ji ren yi muy àndal yëpp juróom-ñaari ren yi muy àndal bu ci nekk ñu def ko sungut muy léegi nag moo ngi nii fu mu nekk nii buñ paree dañuy daal di tëj tëj la léegi nag dafa am loo xam ne lu ci des la loo xam ne looy def ci biir la waaw wa ida qadaa amran fa innama yaqulu lahu kun fa yakunu ci alquran bu ñuul lañ koy liggéey maanaam baata kun nekkal fa yëkkuunu mu nekk bu ko defee nag maanaam ci neex yàlla naqari yàlla ci lañ koy liggéey da ngay forcer mu am mu neex mu naqari dafay am léegi baat boobu muy laay jooju dafa am ci euh, lim buñ koy liggéey bu fekkee ne yow mi xëccoo wala nga bëgg a toog wala nga bëgg maanaam euh, am alal dañuy wax at yi nga am bu ko defee dañ ko xisaab daal di bind laay jooj maanaam ci nombre boobu buñ paree nag daal di ca def la ñuy def moom ngay ubbi sàngara bi nii nga xooj ko ci yow yaa xool ba xam bëgg ngaa xooj uh, alquran ci sàngara wala déet ñun suñu yoon nekku ci yow yaa def rek boo paree nga daal di ko sangu boo koy sangu nag juróom benn fan nga koy sangu yàlla juróom-ñaari fan la bind waaye juróom fan ngay sangoo weddi yàlla boo paree ci amul mu lay teree am xaalis wala mbindeef mu lay teree falu amul ci kaw suuf mu neex yàlla mu naqari yàlla da ngay am mu neex yàlla mu naqari yàlla da ngay falu mu neex yàlla mu naqari yàlla at moom kenn mënu la caa tere am xaalis wasalaamaaleykum